lan nga ci Papa Yada. oui man la grand frère Papa Yada bi waaw mën nañ daan nañ ko mën nañ ko wax ne man man maa géré Papa Yada maa sama mère ñoo yor lépp am. waaw daanaka ñoo yor léppam waaw lépp lu muy duggaa lu muy ci yëpp waaw ñun ñoo si taxaw suba ba ngoon miti nañu nag trop miti nañu trop mais nag dañ koy sant yàlla rek suñu borom waaw parce que li fi bàyyiwul yonante bi bàyyi fi sëñ Touba bàyyi fi maam Alaaji Malick waaw du fi bàyyi kenn waaw jalu sukuraat bële moom ku ne sa wàll rek nga fay jël waaw ku ne sa wàlla moom wàllam la fa jël ñun ñi sax suñu wàll muy fa xamuñu kañ la ak naka la waaw dellu daal di sant suñu borom rek waaw. ñu bi waaw sox bi moom moom ni mu demee moom moom dafa demoon defi ji garde waaw dafay garder terrain. te bi ñu defee garde ba pare di ñëw di ñu bisee ñibbisee ay quatre heures du matin yooyu vers cinq heures du si tournal rond point si tournal kii euh, tunnel Rufisque bi bi mu ñëwee ba si tournal bi noonu am na benn engin bu panne foofu. waaw engin bu paan bu ñu naan caterpillar caterpillar bi dafa paan foofu paan dafa euh, presque si guddi gi la paan léegi ki ko waroon ki waroon répa def réparation bi rek def réparation ba sonn paan bi nanguwul jàll mu dem ne xaa ah, ma tëddi bu suba su ma tëddee bu suba su ma ñëwee de réparation bi léegi xam ne rek dogalu suñu borom rek par la suite si la Papa Yade ñëw di daw xam naa alit bi mu doon dawee noonu gisul tunnel bi amul signalisation. waaw amul lumière aussi tamit mu ñëw heurté ko. te na sax par la ñu ne ma ñi ko fa doon heurté tamit bari na ñi doon heurté caterpillar bi bari na si la heurté caterpillar bi après si la si la daanu. si la daanu yéex nañ ko gis sax léegi après par la suite si la ko am ñu ko gis dem bokk ñi ne woon si daral bi biñ ko waxee ñi nekk si daral bi léegi après si lañ ñëw. ñëwee ñu woo sapeur woo nañ sapeur ba son toog nañ fa lu yàgg daanaka yaakaar yaakaar naa ne sax sapeur buñ teeloon ñëw xëy na dañ dinañ am na am na loo xam dinañ si gën a mën a taxaw mais non moom moom ku wax ku nekk ak sa bàmmeel moom ku ne ak sa bàmmeel Assane moom foofu moom solo woon casque parce que distance bi mu doon daw noonu xam naa li mu ne soriwul parce que casque am sama bitig la ko daan teg moom ko daan jëlee fa la ko daan xam nga rek ndogalu suñu borom suñu borom moom lu mu namm si yow moom kenn mënu si dara jour foofu la bàyyi casque bi waaw xam na li mu ko fa bàyyi li ko fa bàyyiloo sax xamu ko waaw xëy na yàlla moom moo waroon a jël bakkanam foofu rek waaw. taxawaay mat na waaw sapeur moom bi ñu ko jëlee ñoom daanaka ñoo def première soins yi waaw parce que bi ñu demee hôpital euh, hôpital Géej ñoom dañ duñ ko laal. après ça pour jël ko yóbbu ko CTO ñu dem CTO ñu fekke fa ay stagiaire affaire yooyu ñoom tamit ñoom ñu ne duñ ko laal ba ça pour ñoom ñoo obligé doon def premiers soins yi foofu waaw ñaan leen kii doon leen ñaan complexe ba waa CTO yi naan leen noo amul instant bi dañ jeexal complexe affaire yooyu waaw ça ñoo jël kii bi jël benn kayit boo xam ne moom lañu fixé tànk bi yooyu noonu ba ñu ñëwee hôpital principal waaw bi ñëwee hôpital principal na ñu dugal ko urgence waaw. waaw génn àdduna gi mu ngi doon lundi lundi la doon lundi lundi 17h ci la génn àdduna mu fi entré le vingt 26 waaw mu fi entré dimanche 26 day génn àdduna lundi 3. lan nga mujjee dund ah, de sama frère de man. waaw daanaka sama frère de mën naa wax ne mën la mujjee waxal avant muy waxaat kenn. parce que maa xam moom ñoo nekkandoo woon urgence urgence sax nanguwuñu ko fa dugg waaw mais xam naa soog bi tellement miti na miti goo xam ne nii réaction yi mu doon def affaire yooyu noonu léegi après la suite si la ma docteur ma ñëwal nga waxaa nga calmé ko affaire si laa ñëw di ko calmé waaw ne ko man la man la Ali Assane man la Ali après si la tëddaat léegi mu tëddaatee mu ne ma Ali dindil ma affaire bii nii ñu ma def nii di def may empêché ma nooyi ma dindil ko que nekk ndax baax na mu ne ma waa baax na maa ngi nooyi normal. ne maa ngi nooyu normal après mu nekk c'est bon mu ne ma baax na mu ne ma ñii dañoo baax rek barke sëñ Bamba loolu daal la mujjee wax waaw sëñ Bamba doon ku mu fonkoon mm-hmm. waaw doonoon ku mu fonkoon te turam la mu turam la mujjee prononcé waaw mbokk yi ñu ngi leen di nuy di leen siyaar di leen jàll li nu bokk euh, ñu ngi fii ci morgue principal bi nga xam ne li nu fi indi mooy wàcc liggéey euh, Papa Yada di xale ñu tax koo xam ne dunu ñaar kenn la muy feeram di léppam frère maa lay nuyu ginnaaw bi ma la masoo di la jàll. maa lay sant bu baax di leen gërëm bu baax gis nañ seen taxawaay ci affaire bi boobu ba yéen a ngi ñun ñu leen di gërëm bu baax. tur bi naan Abdoulaye Kandji. Abdoulaye Kandji diggante Papa kooku sama seex kooku. man daanaka benn mbër Balla Gaye moo tax mu bëgg làmb Balla Gaye sax moo tax mu bëre mais dama dugg si bëre dajeeg moom bokk ko moom dëkk Tëngéej ñu màggandoo boo ko année bu ñu juddu maanaam ma dem ba lépp lu ma lépp lu ma neex si làmb wala lu ma mënul woon def si làmb sax su ma ko gisee rek day mel ni man maa ngi koy def parce que dama commencé woon di bërentu dem ba si biir bàyyi dem armée moom mu continuer di bëre mais lu ma xool soon bopp rek nam ma si làmb rek wala bu ko def rek si moom laay geesu te di ko si xool ñu siy ànd mu doon nit ku baax doonoon champion doonoon xale Papa Yade mu jël si ay drapeau bu ko si télé bi ñu ne lii amul billaahi wallaahi yàlla da ko mayoon bi ñu nekk xale bu làmb daan am ñoom suñu yi daan bëree tëngéej si tefes gi moom du bëree foofu day génne dem tëngéej si ay HLM ay cité taaku fu ne dem ay Arafat di jël foofu ay làmb di ñëw di ñu fekk si foofu di ñu ko andil xale bu yàlla mayoon daal. billaahi wallaahi. muy sax xarit yàlla def mu dem demin wu gaaw boo xam ne ci accident la amee loo ñu mën indil ci ci accident bi wala loo ci xam ak loo ci xamul. waaw yàlla moom tamit ay mbiram kenn xamul lan la. lii wala hawla wala quwwata illaa billaahi al-azim yàlla moom moo mën moom moom lépp ñu nay jaam kese lañ. waaye de mu demee ni moom wax dëgg yàlla barki Seydina Mohamed bett nañu mbetteel goo xamante ni ndaxte man gëjoon nañu gisee parce que maa ngi Dakar mu ngi tëngeej mais jour bi muy def soog si suba gi dañ déggante téléphone ñu waxtaan lu bari ba mu wax ma ñu ngi dox ay combat am combat Gris Bordeaux Balla Gaye bii nii ñu ngi ko si doon defar ay démarches mais su antagul woon si semaine yi la ñu waroon def réglage si guddi gi ñu woo ma ne ma def na choc si moto. parce que benn cap caterpillar je sais pas benn tracteur moo gaare woon si tunnelu Tëngéej bi foofu mu génn dal ci kawam vite fait affaire yi ay kenn mënu ko expliquer quoi. mais bi mu tëddee urgence est-ce que bi nga ñëwee xàmmeeku na la. non non bi mu ñëwee parce que man dama doon toog di dégg ay écho te ngay su ma wootee frère am mu ne mu ngi tane après man mu ñëw principal gis médecin bi parce que dañu doon bañ a autorisé pour nit ñi di fi dugg ma def le tout comme que militaire la ma dugg fi gis ko mais bu si dafa tëddoon du wax. mais da ngay toog à distance di ko seen muy nooyi par travers de machine ku ci comprendre ñu sàng ko nii mënoo woon am accès si moom quoi état am xam stable woon ni ñu doon wax état bi dafa stable affaire yooyu noonu billaahi wallaahi mais daal affaire yi man xaw ma la la gannaaw billaahi wallaahi xale boom avenir xale bu am avenir si làmb cette combat cette victoire nekkoon ci yoonu làmb bëgg yaayam bëgg waa Tëngéej bëgg ñu ñu ñii di xaritam barki Seydina Mohamed ama neex ay doomu gisee taxu bu amee combat Assane Diop bu amee combat rek nekk na nit daa fonkoon li muy def mën na nekk si dëgg bi mën na toog mën na def lu ne mais bu amee bu jëlee avance rek jafe na si ñëpp doo ko wax jugal entraînement doo ko wax dara bu amee combat rek mu ngi këram toog fonkoon nit ñi bu amee làmb mbër da nga daan tëj sax di sécuriser pour kañ bañ fi dugg ku ne ku ñëw mu may la accès nee na ko mu ñëw fu muy toog buy ngemb sax ngemb rek moo koy dugal si biir néegam si ëtt bi lañ daan toog ñu ñëpp billaahi wallaahi <laughs> ànd nañ ay mbapat ndaayaan ànd nañ ay mbapat puut dama naan branlé nekk armée génn bu ma génnee ñëw jël ko ñu dem bëri ji ay Thiès bi muy daa une doole mbapat gaal gi yooyu yëpp nekk tout tànk di ko def di def ay performance yu amul yu yu extraordinaire di jël ay nag lu nekk yàlla may nekk si làmb lu nekk billaahi wallaahi deewam def ñu bett nii nii nii kenn xamul lii la la nii man kenn xamul lii na la woon di mën a expliquer billaahi wallaahi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di gis taxaw gis nañ seen taxawaay bu baax di ko jaale waa Tëngéej di ko jaale yaayam yaayam moo ñàkk ak waa parce que yaayam de moom chaque jour loolu doon wax day dimbali yaayam chaque jour barki awra di la nuyoo di la siyaar di la masaw di la nu bokk bëggoon xam seen digganteeg Papa Yada. waaw dañuy sant yàlla rek balaa ñuy sori ci lenn ñu ngi koy ñaanal fi mu jëm gënal ko fii di ko ñaanal yàlla rëccu lépp lu mu doon def ci ci ci àdduna rakk la woon ci ñun man ku sori woon ci ci man la man naa wax ne man mësul siggi xool ma mësul siggi xool ma mbokk la deret la ci man rakk la ci man et eh, ku sori woon la ci man eh, yàlla def na sax moment bi affaire bi da am noonu ci lañ gënoon jege ñëw ñu toog benn guddi wala benn bés boo xam ne diñu dinañ gise ba bés bi nga xam ne ci la accident bi da am. ngeen mujjee diggante. jour bi muy def soog gisante nañ. jour bi muy def sa si guddi gi gisante nañu. yan kàddu ngeen mujjee weccoo yoo xam ne des na sa bopp mel lu meloon ni tàggatoo. dañ doon tàggatoo comme suba dañu waroon gisewaat rek. wallahi azim dañ doon tàggatoo comme suba dañ doon bëgg gisewaat moo tax biñ ma oowee ay 3 heures du matin wax na ma dafa def soog boobu xamoon naa ne soog bu metti la daal parce que ku ñu expliqué soog bi ni mu ko defee rek maanaam suñu borom rek moo si mënoon teg loxo suturaal ko mais suñu borom nag mooy dawalee lii mu metti lool lool lool parce que Assane Diop. doom la woon ci ay doomu yaayam mën nañu wax ne loolu du ñàkk ci àdduna mën naa wax ne yaayam Assane Diop moo ko gënaloon ci ay doomam man mercredi bi passé yaayam wax nañ téléphone parce que tàgg nañ ma ko mercredi wallahi azim mu ngi dund moo ngi dund moo oo yaayam waxuma ko dara sax mais dama doon xool rek bi ma waxee moom laa xam ne dara dara xewul mais suñu boroom moom nit ku nekk mooy tracer sa destin papa yàlla moo ne woon fii lay yem ak ñun fii la yem ak ñun donc dañ koy ñaan loolu ka fi des metti lool lool lool nag parce que nit koo xam ne da ngeen daan xëy chaque jour di ko gis xëy un bon jour ñu ne la accidenté na mais bu ñu la waxee ni mu accidenté rek nga xam ne tey jii suñu borom rek rek moo si des donc mënuñu lu dul di ko ñaanal mais ñun ñëpp aussi dañu sas parce que ku si nekk tey jii si ñun maanaam boo daan am combat da koy jël def ko ni combat te moom aussi am na lu mu yéene woon tëngéej am na mission man boog daraan ma doppe samay combat nit la koo xam ne ragal nekkul woon ci moom ci dara donc ñun dañu am mission bu ñu war a àggali mooy moom li mu yéene woon ak waajuram te dafi bàyyi aussi soxna ak tànk bu ndaw ñu teg ci loxo bu baax a baax ak yéene gi nga xam ne amoon na ko ci làmb ci tëngéej di ñaan suñu borom mu kàttal la ñun ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi des ba ñu mën ko mottali parce que moom gëmul lu dul tëngéej gëmul woon lu dul tëngéej te Baye Fall la woon papa yaa dëgg Baye Fall li ñu naan Baye Fall Baye Fall la woon donc mënuñu lu dul di ko ñaanal nag di ko di masawu yaayam man naa fi mu toll yaayam amaana yaayam boo tegoon ay doomam yëpp papa yaa la siy jël teg ko si xol bi parce que doomu yaayam la woon woon ci yaay ju lool lool lool lool trop trop trop damay ko rek papa yaa masul fayeeku un million ci làmb kasam bi mu mujjee bari su ma juumul moo nga fayeeku quatre cent mille yaayam tegg na teggi na nattu un million def ko ci làmba ji donc kooku am na fu ko yaayam toll woon ñu ngi koy ñaanal nag fi mu jëm gënal ko fii. d'abord auzu billah bismillah inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam nga di wax man la maama yaabu tëngeej ku ma xamul dégg nga moom di wax Médoune tey tiis bi metti na trop waaw di wax tey jii nii Médoune tiis bi métti na trop. waaw du mën a tëngee sax mais askanu làmb ñoo am métit waaw mu doon suñu benn nit koo xam ne ni suñu rakk ku joxe woon cër nag ku respecté nit xam nga fu mu ñu gis tëngéej daf ñu daan bégee moo xam mama yaa yor oto wala mu yor mbëtam wala moom mu yor mbëtam day ñëw day ñëw ba sama gaale tamit aussi daan ma seet mënuñu woon toog ñaari fan wala ñett yoo xam ne duñu gisante wala du ñu daje si tali bi man bi ma man dama gisante ak moom quatre jours après si la loolu am parce que ñi ngi daje si daral bi si Tëngéej fekk moom ndeysaan fu ma fekk daf may tooñ jox ma xam nga ni yow am nga lépp xam nga di ma mbala quoi xam nga maa moom tellement que niñ meloon nii doy na waar. te aussi tamit bi ma yëgee affaire bi noonu automatiquement rek dama woo ama neex ñoo ànd si ëllëg si lañ ñëw ba fii nii biñ ñëwee tamit ñëw naa ba si biir kii bi fi mu fi mu nekk noonu gis ko te bi ma ko gisee automatiquement dama dem Tëngéej. am nañ groupe bu 100 pour cent mbër yëpp a nga fa ci laa dugg wax ak ñëpp ne leen kii dafa tawat doon na loo xam ne ba gars yi ku nekk rek loo jotoon am génne nga ko ñu dem pour def ay moyens yoo xam ne pour ñu jàppale ko rek pour rien que papa yaa du jóg waaw. nu meloon comme non kooku mënoon naa ne kenn la si suñu biir te yàlla def na ko loo xam ne nii defu ko kenn parce que boo seetee bi mu duggee si làmb yàggul mais tey li ko yàlla may mayuma ko mayu ko doomu dàngu mayu ko am a neex. dëgg neexul te loolu yëpp nag li ko may moo di taalibeem yëg nit chaque jour xolal mi ngi si nit ci jaamu yàlla yi xëy na nag dañ nekk dëkk boo xam ne dafa métti trop dafa métti trop te day suul ndaanaan man émission bu ma yàgg def rek dama koy wax mais maa ngi dellu encore une fois di ñaan autorités yi di ñaan lu bari lu bari du benn du ñaar man woo naa tëdd naa bu guddi ñu tàgge ma ñu tàggee ma ne ma dee na ma woo ama neex mii nii a neex na ma defal ndànk fexe ba woote ci parents yi woo mbokk yi parce que ñun bi ñuy njëkkee ñun bi mu feebaree maak ama neex la ñu ñëw gis ko fi amul beneen mbër bu ñëw gis ko fi mu nekk maak moom ñoo dugg ba ci biir fi mu nekk ñu wax ak médecin bi médecin bi ne kii ñaan rek lañu soxla ci moom xanaa ngeen ñaanal ko xam nga ndekete boobu mi ngi tàggoo xam nga di ko ñaanal nag xam nga àdduna moom noonu la métti na trop nag deewee ndaw nekk si yoonu làmb tey gis nga mbëri ku jóg jox ma papa yàlla papa yàlla kon def na preuve yoo xam ne nii dafa am cër si làmb mais métti na nag trop waa tëngee tey moo ko ñor comme ni ma koy waxee parce que ñun amuñu lenn lu dul tëngéej tey mbëri dañ naan parcelle ñii naan géejawaay ñii naan pikin xam nga ku nekk di wax faas fa nga dëkk mais ñun amuñu lu dul réew tëngéej forever xam nga tey bu ñuy kii moom la ñuy bëggee te tey moom kenn la woon man gëmoon naa ni moom rek laa la wax mënoon na doon ki nga xam ni mën na jël roi des arènes barki Seydina. Mm-hmm. waaw liy doxalee rek mooy taxaw taxawaayu jullit rek taxaw taxawaayu jullit te incha allah dinañ fexe def le tout ñun lépp luñ si mën du do parce que kii doonul ku ñuy fàtte de. Mm-hmm. doonul ku ñuy fàtte. dafa mm-hmm. yàgg tey dafa bàyyi tëngeej benn archive boo xam ne kenn du ko fàtte. te incha allah lépp lu ñu si mën moo xam tout temps bi mu fi bàyyi ak soxna Seck ak kii bi yëpp dinañ si jéem a taxaw taxawu ko si saayir ak baatin parce que booy bi méritoo na ko nit ku baax la nit ku respecté nit la xam nga nit moom da ngay bu nit deewee rek ngay dégg nit ñi di wax si yow nii di wax si nii mais wax dëgg yàlla man ne joxoon na ma cër respecté ma ne te doon naa ko wax même bu li ma koy wax bu ko jëfeewul sax dina ma déglu ne ma waaw mbër amul problème dem aussi ba bi ñuy mujjee waxtaan dana daf may booleeg benn maaraawam xam nga parce que yow danga am cër maak moom dañ doon contact pour ma daan ko sax problème lay doon ndax jàmbaaram xam nga mu ne ma yow mbër ñaan moo la manqué dinaa la booleeg sam benn maaraa nii ba ñi ngi ko doon nas ndekete yoo xam nga yàlla day def li gën mais nag di sant yàlla di ko jaale particulièrement waa Rufisque xam nga di ko jaale famille làmb di ko jaale ñëpp di leen wax nag àdduna nii la ñu ngi nii di waajal jël level record bi incha allah après li si des mooy loolu quoi. doomu ndey di Papa Yade suñu borom jëlee ko fi. Euh, di ko ñaanal rek fi mu jëm gënal ko fi mu jóge mu nekkoon nit ku baax nit ku ku ku am kóllëre ku bëgg ay doomu aadama euh, daf ma daan wax naan mbër mu ne ko waaw mu ne ma danga sedd loolu rek la may waxe rek lan la mu ne non da ngay tàngal affaire yooyu noonu ndeysaan mais euh, mënu sa wax si moom ko vraiment ndaxte nit ku baax la ku bëgg doomu aadama ku bëgg sport bi gëm ko mais comme ni ñu koy waxee rek yàlla suñu borom lu mu namm si doomu aadama kenn mënu si dara donc euh, ñu ngi koy ñaanal fi mu jëm gënal ko fi mu jógee fuuf euh, ak mbooleem jullit ju mu fa fekk yàlla na leen yàlla suñu borom yërëm te xaare leen àjjana si barke Seydina waaw man euh, xam nga maa ngi dugg mais bi ñuy mujjee gisante mi ngi nekkoon daral ba lañ daje ko waaw dañoo daje daral ba ma gis ko ne ko mbër fekk dama ñëw tabaski bi bi ko gisee tooñ ko noonu nekk waa mais champion temps yi si loo nekk affaire yi mu ne ma maa ngi fii affaire yi ma nekk naka entraînement ma après may dem mu ma ñëw ne ma mais yow man dama sax yow temps yi da foo nekk ba rek maa ngi kéddugu affaire yi noonu mu ma si la war tax dañoo gëj a gisante naa la gis si groupe bi ndeysaan mu ne ma sama téléphone moo yàqu affaire yooyu noonu mais xam naa fii ak quelques jours rek dinaa am téléphone balaa tabaski bi dinañ dugg si groupe bi incha allah parce que xam nga comme dañoo am group bu 100 pour cent Tëngéej boo xam ne dafa réunir mbër yëpp donc fa la ñuy faral di waxtaan mais dama ko gëjoon dégg lool donc mu nekkoon ci ay yite mu ne moon léegi boo incha allah boo ñëwee rek eh, fan yi su ma amee téléphone rek dinaa dugg ci group bi far yàlla def yàlla dogal li parce que mi ma doon naan après tabaski bi juste dinaa dinaa dugg ci groupe bi incha mais nag eh, xëy na lii mooy lu gën quoi di ko ñaanal ak képp mbër wala képp doomu aadama di profité aussi di ci jaalewaale suñu champion Jules Balde Jules Balde Junior xam nga ak mbëru Tëngéej ak mbëru nit doomu aadama fu mu munti nekk si àdduna ñu ngi koy euh, te yàlla def nekkatoo fi ñu ngi lay jaale say mbokk di la ñaanal yàlla suñu borom fi nga nekk gënal la fi nga jóge waaw man affectation moom ma yóbbu kédu parce que léegi parrainage nekkatuma sa étudiant léegi professeur la donc génn naa pare naa formation ñu affecté ma lycée Kédougou foofu falaa nekk di servir maa ngi woon waaw dama am bac def six ans après dem Kédougou. ok ginnaaw bi ñu la nuyoo di la masaw di la jàll ñu bokk bëggoon na xam see diggante ki dem di Papa Yada. waaw maa ngi sant yàlla bu baax di julli Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sant sama ñaar waaj kooku kenn la woon ci woon ñaan kañ mooy yàlla ko suñu borom yërëm xaaral ko àjjana ndax doonoon na nit koo xamante ni ci man mënu ma ko sax expliquer fi ma tegoon te wu fa mbindeef man xam naa loolu. kañ nga ànd ak moom. mooy papa maa nga yar yaayam moo ma yar ami seen yaayam moo ma yar papaam am gaal mu si dem géej boobu booy baa ngi nàmp mu nekk njaayeen jokkul njaayeen la juddoo fa la màggee fa la déggee daal yi papaam moo ñu jàngal géej maa ngay nuyu en passant mbuur la papaam dëkk. ñëpp gis ni virusu làmb ci yow la ko duggee. waaw mooy li ma rek papaam moo ma yar yàlla def loolu xam nga benn instant bi ñuy nekk ñuy xool ñuy bëri mbappat mu ñuy topp ba tey lii am ban dem si turandoom papa yàlla maa ko jox tur bi nag jëlal paa bi comme te noonu suñu tur dépassé na foofu jëlal tur bi nga am papa am ko mu uyoo am ku mu xoolee mais jom ji nekk si papa yàlla jom ji nekk si man moom la booy bi mu def fit bi jom bi lépp appliqué ko man ñàkk naa koo xamante ni dootuma ko gaaw amaat si àddina ndax ku ma déggal ku ma respecté max moom la ñuy bokk flottant caleçon barki Seydina Mohamed. kañ ngeen mujjee jokko ay kàddu. mooy barka démb bi ñu tëbasitee une semaine vingt 26 la def soog ma jokkoo ay daaw ni ni dem nga da nga yëngal la loolu moo wane ma dem ay cant te foo ko fekk mu si cant yi di sikar yal na ko borom cant yi wàllu yal na ko malaaka yërmande wàllu si barki Seydina Mohamed ku xool bu rafet lu mu am yaayam tu tànk yi ñëpp benn la si ñoom. mu mel ni soog bi dafa métti woon ndax dégg nañ ñu ne tàggi nañ ko sax boobu deewagul. waaw nit ñi ñu ngi mënoon woo man ñëw naa fi fii ñëw naa fi seet sa ko mu nekk daanaka comment mu métti lool muy nelaw sama yaram ndaw sama yaram sumeeku démb dama doon nelaw toute la journée mu mel ni dee na ma nelawal quoi dama yeewu nii rek. ñu tàgg ña wax ma ne ma Papa Yade ma ne loolu man la ne man démb laa jógee hôpital principal. ñàkk naa koo xamante ni barki yonenti yàlla Muhammad duma ko amaat man loolu leer na ma li may xalaat kan mooy ma am combat kan mooy nekk sama droite. oh. sa bis jot sa jot mu def ci lu man ak li manul ci wàllu jom ak ngor. ba bakkanam la si teg kon mu amee combat ni ma si tegee sama bakkan moom bakkanam la siy teg moom faalawul dara xale la boobu 27 ans la am judduwul dafa njool nii rek. mais nit ku baax ku xolam am xolu yërmande bëggul kuy néewal doole kenn. billaay laajal ñuy toog bëggul kenn koo xamante ne day néewal doole bëgg. combat boobu dama ngay entraîné contact ba mu mer tekki ngemaam dem. ndax sonn na ma li nga may teg antalu ma ko barki Seexul Xadim mais bu mu demee ba noppalu ba giifa daal ñëw na ma mbër baal ma axa yow su ma ndam rek nga ma bëggal yow mosoo jàpp bàyyi ñawaat ñu nekk si ma nag booy jàmm rek laa la yéene mu nangul ma nag nangul ma nangul ma xamoo nit da ngay nekk ak moom mu nangul la loo def mu nangu la da ngay xam ne kii nii déggal na la barki alxuraanu karim du ma def lenn lu ko umpa moom lu def leen lu ma umpa yow philosophie bi bi ama neex daan demee lay demee loo wax mu ne la réew rek a ñu tax a jóg réew kese. ñun tëngeej moo ñu ñor. ku nekk da ngay tiitaroo sa gox naan ay parcelle ñii naan Pikine ñii naan fee mais ñun Tëngéej lañ am Rio waxoon naa ko waxaat ko Rio gars yi xamuñu Rio de Rio ba ngi ñëw. loolu baat boobu mu daan génne ci làmmiñam. waaw loolu ci man la ko jëlee rek. nga wax mën a Tëngéej xam nga li nga doon moom boo ko bañee daa fekk nga gën see ñaaw am fëggu am fit du ragal. Mhm. ndax sama pekkeer la juddoo maa ko ngénte barki Seydina Mohamed. li ma lay wax nii laajale yaayam yaayam doon ku baax doon bañkat Ami seen doon bañkat li ma koy ñaana mooy yàlla yàlla mooy xolam muñ mais ñàkk na ku mel ni Assane Diop fi bàyyi soxna si nag. waaw yàlla moom pare na li mu war a def def na koo pare nun nooy xool xaar bis bi jot rek yàlla nag yàlla may xolam muñ soxnaam ak doomam tout tànk bu ndaw bu fi am un an et demi la fi ba bu jigéen. yal naka ko malaaka yërmande teeru mais li ma la mën a wax kenn ñàkkul ko loolu man Assane non kenn du Assane Diop yàlla na ko malaaka yërmande teeru si darajay Seydina Mohamed. mel ni korokon ba jël daal yi da doon tàggatoo ak yow. daaw bi may dem États-Unis si rond point asalam la fekk. munuma doo dem ma ne ko lu tax munuma daala yi nga sol day jëm maa ngay jël billaahi wallaahi tallaahi noonu laa simee daala ibbi sama maalo oto jël ay cerax moom laa yóbbee ndax moom moo ko moom. ndax nit bu la nangulee. loo yor nga ko war a jox. booy bu sérieux booy bu baax tabe lu mu yor nit ñee ko moom. yërmande nag daa fees dell ak yërmande nit ku nekk na di nga tooñ. nit ku nekk di nga def ay erreur mais maanaam li ëpp solo mooy xol yërmande xaaral ba ngeen ñëw fële da ngeen gis loolu masul gis li mu am tey kilifa sa amu ko yàlla na ko yàlla yërëm xaaral ko àjjana firdawsi yàlla may xolo mu ak njabootam ak yaayam ak papaam si bark Seydina Mohamed. pour mu jógee ci hôpital bi dem këram lu tax kayit yi nii aas. mu mel ni fi la moom la fanaan. fii laa fanaan yi depuis sa matin ba léegi cinq heures matin ba léegi ñu ngi toog fii di xaar médecin bi pour mu ñëw. boo bëggee dëgg-dëgg man du ma waxantu. ñu ne comme te choc la def il faut ñu def constat bi. ñu demaat tëngeej ñu jox ñu këyit euh, margo bi ñu dem tëngéej dem pëlis ñu bindal ñu këyit yi defal constat bi ñu ñëwaat indiwaat dossier yi ñu des na ñu bindalaat ne il faut ñu demaat tëngeej procureur signé ñu demaat tëngeej jaamante naa tëngeej quatre fois ñu ngi doog a ñëwaat nii. lu téye ah, ñu ngi xaar léegi fi nekk recevoir nañu ñu ngi xaar pour médecin bi signé affaire yi après ñu indi dem kees ñëw fay jël koor bi. bu baax di la siyaar. waaw maa ngi lay nuyu tamit di la siyaar di nuyu àdduna bu yëpp. Mhm. di siyaar ñëpp di baalu àq ci weer wi ñu jógee muy weeru tabaski bi. Mhm. di baal ñëpp àq. Mhm. tey ñu fekk la fi nga xamante ne yaakaar naa muy bés boo xamante ne bésu naqar ak tiis la sa raqar dëdd lan ngay mën a def témoignage ci sa papa Yade. waaw mais xam naa ne eh, jullit la xam naa ne eh, Baye Fall la xam naa ne taalibe Cheikh Ibra la. xam naa ne taalibe Serigne Touba la. mais mën nañ témoignage ci moom. te fii ba suba duñ fi jox parce que xale la mais ku baax la boo xoolee mbooloo mi ne fii ah bu fekkee mos na génne fii tamit ah man loolu mosuma fekk. comprendre nga ñëw naa fi dëj ñëwati fi dëj waaye mbooloo mu toll nii ah yombul mu génne de te booy bi xale la. waaye dañu koy ñaanal yàlla mi am yërmande mu yërëmal ñu ko jégalal ñu ko parce que fii koo fi xar xolom loolu ngay fekk si moom mu doon raka joo xam ne nag dafa doon koo xam ne dafa sax si xolu nit ñi. parce que boo xoolee gan yi koo xool mën na la Papa Yada koo xool mën na la jàmbal mu doon noon nag complice. moom ak yaayam ñu doon ay xarit. yaayam doon complice am. man loolu moom ma gën a marqué si soogo dessin bi. parce que dafa doon xaritu yaayam bu bëri man dama doon dem seen kër da doon ñëw suñu kër. boo ñëwee yaayam dafa ma doon wax ne kii yow laa ko may comprendre mais moo yaayam dañuy waxante. ba da nga naan lii sax mënul nekk parce que yaayam xaritam la woon mm-hmm. moom yaayam mooy gën a ñàkk ñëpp waxuma si en cadre jureel mm-hmm. mais cadre nam ko taxee woon mm-hmm. papa yaada bu toogoon seen kër na un million laa bëgg a fun yaayam dina ko wëri fu ne jox comprendre maanaam yaayam daf ko fonkoon bëgg ko doon soppeem teg si doon fansam moo tax bu lii amee man dama koy jaale yaayam di ko jaale fameem bàyyi na fi nag doom bu ndaw bàyyi fi soxna comprendre nit nag boo amee yeneen ne koy jàppale mu bàyyi fi tout tànk yaakaar naa yéene boobu du dox. Mm-hmm. comprendre nga ma ngay jaale eh, di ko wax allu làmb yëpp na leen Papa Yada bàyyi na fi doom bàyyi na fi xale mm-hmm. nit nag boo koy dimbali. Mm-hmm. ba mu jóge fi amaana bu fi bàyyee doom bu fekkee loolu yéene la si yow. loolu day continuer. ma ngay waxaale ahlu làmb yëpp ñu jàpp si. comprendre ñi nga xam ne def defkatu lu baax lañ. ñu jàpp si autorité yi tëngee yu baax ñii comprendre nga mbër yi tamit. man moom su ma waar dañul si moom. parce que su ma moom na ma ko doon tegee seen kër dinaa continuer di fa teg mais maa ngi koy jaale àdduna yëpp.